asalaamaaleykum am chers internautes solution TV ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di leen jaajëfal ci ni ngeen ñu toppee chaque fois rek ci suñu ay euh, programme na euh, comme ni ngeen gisee nag ñuy daal di waxtaan yi lépp loo xam ne rek mën naan dafa daal di soxal euh, réewum Sénégal rawatina Sénégal yi nga xam ne rek ñoom ñoo fii daal di yeewu moo waral nag ndiki tey ñu daal di fi dalal Cheikh Ndiaye ak yi nga xam ne moom mooy Isma Faye ñoom nag ñu nekkoon foofu le ca société boobu di ciment du Sahel ak jafe-jafe yi nga xam ne. ñi ngi ko fa doon euh, dund ba tax na ak li waral euh, ñu daal di leen di licencier lépp rek dinañ ko daal di euh, waxtaanee ñoom itamit ñëw fi rek ngir dénoncer la nga xam ne moom moo am ca boobu li société laata nag ñuy daal dugg ci li nga xam ne moom mooy bile waxtaan ma daal di dox ma daal di jox Cheikh Ndiaye kàddu gi mu daal di nuyontee que ñuy bàyyi xel Cheikh maa ngi lay nuyu. asalaamaaleykum waa mbokk solution TV. Mhm. ñoom jaajëfal di leen tatagal di leen ci dérangement ak déplacement bi ngeen ñu accepté lépp di nuyu tamit yow di la nuyu sa tur ak sa sant. Mm-hmm. ak sama xarit bii di Isma. Mm-hmm. waaw jaam jaajëfal fas yéene waxtaan daal li xew ci suñu bërëb boobu di cimenterie Ciments du Sahel. Mm-hmm. waaw salaam. voilà incha allah dinañ ci ñëw bu baax a baax ci kanam ma tuuti Isma ñu ngi lay nuyu bu baax. waaw ñu ngi lay kontaan bu baax si euh, invitation bi ngeen ñu accepté. Mm. juste rek ñu bëgg a ñëw tey pour euh, wax suñu naxar ak euh, li ñuy dund si ciment du Sahel. Mm-hmm. parce que ciment du ay naar ñoo ko yor muy famille Layus. Mm-hmm. nekk Tëngéej ci bon mën naa ni cimenterie bi yàgg na fi daal mais depuis bi mu créé ba léegi. Mm-hmm. man mën naa ni ci ay njuuj njaaj rek lay demee ak askan bi quoi. ok ci kanam tuuti nañ ci ñëw Isma mhm. ci li nga xam ne rek moom mooy gën a yaatal bi waaye itam ñu daal di door ak ki nga xam ne rek moom mooy Cheikh seex Cheikh Ndiaye suñu bëggoon a xam rek lan moo waral euh, ñu daal di leen di licencier ci boobu les di du ciment du Sahel. Euh, waaw cimenterie ak depuis quand ngeen fa ngeen fa nekk. Euh, waaw cimenterie ciment du ñun ba ñu fa nekkee yàgg na. Ah. du ay deux ans ak trois ans. Mm. man maa ngi jàpp euh, bu fay dem yaakaar naa je crois que c'est bu 2015 laa fa dem 2015 ba 2023 foofu laa ko mhm. def waaw bi ma fay dem journal yi laa doon def 2015 euh, ba 2019 ci lañ mën a signé contrat contrat CDD 2019 euh, ba 2023 ci la ñu arrêté suñuy contrat ci jaay doole boo xam ne mënoo xam fan nga ko mën a wékk daal ba ne lii moo waral ñu atte seeni contrat parce que euh, ci li ñuy ne moom la ñu atte suñu contrat mooy wàllu syndicat. te man dama jàpp ne travailleur boo gis am nga droit syndiqué. Mm. loolu moom force la. waaw mm-hmm. ah, cimenterie ciment des serres nag dañ fa nekk ñoom ñu ne syndicat du fa am. ok du fa taxaw loolu moo tax ñu licencié ñu. tolluñ nii nag euh, ba bari nañ mais ñu ñëpp mënuñoo ñëwandoo. Mm-hmm. waaw plus le nombre de sept personnes ñii dañoo dëkk dëkkuwaay yi moo nekkul benn. Mm-hmm. moo waral ñu ñëpp mënuñoo ñëwandoo. ok voilà Isma dégg nañ li nga xam ne Cheikh Ndiaye ngi koy wax que ni wàllum syndicat moo waral ñu daal di leen di dàq foofu nañ ci Ciments du Sahel. waaw wàllum syndicat moo tax ñu arrêté ñu parce que mën naa ne usine bi dañ fa nekk. Mm-hmm. di liggéey. Mm-hmm. mais travailleur bu nekk. ñaan nga yàlla avancé si li ngay liggéey. maanaam nga gis si sa bopp. kon donc comme gis ñu suñu bopp. yooyu depuis quand yaa ngi fa. 2014. 2014 moom 2015. depuis 2014 maa ngi fa. ok mais euh, mënoo fa nekk di liggéey rek sans pour autant gis sa bopp. Mhm. parce que da ngay nekk di journalier wu foofu parfois da ngay liggéey am 4 bons 5 bons nga dem ci ki lay fay mu ne la non 2 bons nga fi am wala 3 bons nga fi am te bon bi boo ko liggéeyee ñu pointé la bon bi nga dagg sa bon yóbbu mhm. dajale say bon ba mu 5 wala 4 nga ñëw ngay fayeeku. ñu ne la non carrément trois bons nga fi am. Ah te euh, te fiche bi buy dem dañ koy signer lépp chef de service bi da koy signer euh, naar bi da koy signer. léegi ki lay fay ñëw ni la carrément trois bons nga fi am nga tourné dem si sa certificat maam yéegu wàcc la ba après yow da ngay mujjee perte ñu luubal sa xaalis si journal yow. nga nekk contrat. nga nekk contrat journalier ñaata lañ leen doon fay. journalier 3600 lan lay fay amul guddi amul bëccëg ci ay jamono. Hmm. amul guddi amul bëccëg 3600 la fa la yem. ok te au moins sax bu doon guddi gi waroon jur euh, pointage sax waroon na mën a am tuuti décalage. Mhm. bon nga journalier wu di def noonu. contrat boo nekkee permanent aussi tamit même mhm. chose parce que permanent boo xamante ni tey jii boo liggéeyee weer bu dee bu ñu la fayee sa salaire doo xam lu muy dur. maanaam mhm. ñuy dundul foofu daal lu métti. loo tax ñu ne na carrément dañuy ut syndicat dañuy syndiqué donc bu ñu utee syndicat créé euh, suñu syndicat gars foofu. bon su ñuy pexe. Mhm. yàlla do yàlla def ñu gis euh, waa jiital Sante FC. ñu koy wax mhm. Cheikh Diop. ok moom lañ gis gaa yi gis ko expliqué ko bon taxawal syndicat bi. Mhm. mais man li ma ci gën a li ma ci gën a euh, jaaxal rek mooy. mooy lan le fait que syndicat bi taxawagul. ok kon syndicat bi taxawagul ñu dàq leen. syndicat bi parce que bu taxawoon. bu ah. taxawoon bu taxawoon carrément. kon donc mën naa ni. foofu dara du fa am parce que même bu licenciement amee sax ci loo xam te ni non régulier lay doon. Mhm. syndicat war na mën a taxaw kan non ñii li leen licencié du yoon kon dañ leen teg ci yoon parce que imagine ñu yow licencié la mois d' ba mhm. tey jii ñu ngi ci mois de mai suma juum. Mhm. kon donc six mois xam nga mois. ba léegi. léegi ñu arrêté ni ci ay affaire du parce que comme liste bi ñëw na foofu euh, am suñu. chef de service boo xam nga chef de département la sax. Mhm. Assane Diop dañu yem fu ñu yàlla yemul. Mhm. parce que ci jaay doole menace la rek la nekk ak ñun. Ah amul moom seetu si chef de car nga seetu si travailleur nga seetu si dara ah. seetu travailleur nga seetu seetul chef de car nga seetul dara. mais moom li mu gis rek mooy il faut mu ñëw di xupp gars di leen yuuxu maanaam jël seen fit. léegi lan moo waral loolu. parce que mën naa ni naar bi moo ko dooleel. en fait naar bi moo ko dooleel. Mhm. parce que chef yoo xamante ni chaque deux ans ñu changé leen ay oto jox leen ay salaire yu baax ah ñoom daal dañuy gën di am yow miy liggéey di sonn di rey sa bopp ngay gën di torox. Mhm. maanaam liggéey liggéey du la feeñ fenn. tey jii am na suñu bari ñoo xamante ni yàlla mi xam ne seen i sëy dafa yëngu am ñoo xam seen i jabar dañoo abandonné am na ñoo xam ne seen i famille dañ leen mere. am na yoo xam bu ñu taxawee ni seen yaay carrément li may liggéey yoruma si ñaar dërëm dañ leen duñ ko gëm mm-hmm. parce que bu heure liggéey jotee ñu gaaree la ay bus yu rafet nga dugg ci bus yu confort ki nga dem boo wàccee aussi même chose weer wi de bu ñu la tàllalee loxo nga ne noo aw ma loolu duñ la gëm mm-hmm. léegi daal ñun ñu dugg ci syndicat bi pour yaakaar ni suñu naqar dina faju alors que tey boobu lay gën a dur parce que euh, liste bi ñëwee bon assan Diop gis ko commencé jaay doole convoqué gars yi par benn ah bon syndicat bi du fi taxaw parce que naar bi bëgguñu syndiqué kon donc da ngeen arrêté syndicat yi duñ ko bàyyi parce dañu bëgg syndiqué léegi suñu contrat contrat yi par 3 mois la woon dañ ko doon renouveler chaque 3 mois nga ñëw signé. léegi CDD ngeen am CDD te man li ma gën a jaaxal mooy nga yow imaginer nga def CDD pendant 4 ans. Mhm. loolu ci ban code du travail la am fan lañ ko code du travail bind. CDD pendant 4 ans journal yow sax mën nañ ni mën nga ni mën nga journal am na usine ci yoon doo journal yow lu weesu un ok mais fii da ngay da ngay journal yow plus de ay cinq ans man mii di wax yow cinq ans journal yow naa ok waxuma keneen mais man. voilà journalier cinq ans def ci yow euh, Cheikh Ndiaye ñu gis que ni entreprise bi lay di Sahel euh, du ciment wala ciment du Sahel. Euh, mm. xam ni moom mi ngi koy daal di la. Ah, waaw problème moom mënul weesu loolu parce que lu tax ni usine cimenterie ciment du ñuy fay mm-hmm. ay journée ay journée trois mille six cent. Euh, trois mille ay ay quatre mille ay trois mille six cent daal la la ëpp la la ëpp maanaam li ñuy fay journalier de si si jamonoy Covid 19 bi nag. Mhm. ci la changé barème bi mu doon fay nuit bi doon fay mu booy mujj après quatre mille huit cent. Hmm. parce que ñun bi ñu bi bi Covid 19 bi ñu wax ñu fekk ne après ñun ñu ngi ci suñuy contrat ñun. mais booy bi ñuy fayeeku ba actuellement nii régime boobu ba mu fa nekk trois mille six cent quatre mille huit cent ou nekk. ci hmm. fay booy yi. te alors que euh, tey. di gëm naa ne tey turu boo yooyu ñuy fay 3600 kii ay 5000 ñoom ñoo yóbbu tey turu fi mu nekk. parce que mm-hmm. boo xoolee tey li ñuy produire ci cimenterie yi. Mm-hmm. Euh, 3 cimenterie yi nekk Sénégal yëpp amul mm-hmm. kenn ku ko fa produire pour l'instant lii di boo demee Sococim boo demee Dangote boo demee. Euh, moom su ma seet daal moo nekk euh, cimenterie bi ëpp lu muy produire ci ciment mm. par jour. ok parce que moo gën a bon te te ma ah. waaw <laughs> li koy wax dëgg la moo mm-hmm. gën a bon moo gën a yées moo gën a yées moo gën a yées yéesul ndànk sax mm-hmm. parce que munoo jàpp nga yow tey ngay yor ay quatorze lignes mm-hmm. ci ay machine fayoo say employé di leen fay ay ay ay ay trois mille six cent voilà mais est-ce dem ngeen ci inspection du travail aussi. Euh, waaw foofu tamit boo fa demee. waaw inspection du travail tey boo xooloon tey suñuy contrat tey. boo xoolee tey. contrat yi amul lenn loo xam ne lii contrat yi inspection du travail laa leen ah, ci man loolu moom ma njëkk a yëm te ki doon ki kii signé contrat yooyu noonu moom nekkoon na inspection du travail ñu koy wax hmm. Souleymane Ndong Souleymane Ndong man jàpp naa ne loolu ab liggéeyu sale boulot boobu ñuy def noonu laa xamul ñoom fan lañ ko teg durant pendant tout ce temps ñu koy su déroulé hmm. suñu suñuy bulletin de travail xaw ma bulletin laa ko mën tuddee xaw ma ma ko mën a tuddee parce que boo xoolee bulletin yi ba léegi amul numéro IPRES li gën a garaaw ci gars yi sama gars yi damay koy laajte misaal loolu nañ ci bàyyi xel. Mhm. bulletin dafa war a am numéro IPRES. ok sa contrat dafa war a am signature inspection travail. yow travailleur bi nga signé euh, usine bi signé mu nekk ñetti signature yoo xam ne day nekk ci biir contrat bi. Mhm. tey buñ la wanoon tey suñuy contrat tey buñ la ko wanoon tey ci télé bi tey fii yow da naan lii lii c'est pas normal. te alors que te loolu moom moo fa nekk loolu ñu koy dund. Hmm. loolu moo ma gën a jàpp pendant tout ce temps lan moo tax inspection du travail mu ngi xam ne usine toll ni cimenterie ciment mu ngi ci biir réew mi hmm. mu ngi fonctionner mu ngi mu ngi produire mu ngi jaay ay ciment partout hmm. ñoom xam nañ ne xil usine bii mu ngi fa tax am na ay contracteurs yu fa nekk lan moo tax ñoom vérifié wuñ loolu boobu ba léegi lan moo tax vérifié wuñ loolu ba léegi lan moo tax ñuy bàyyi régime ba loolu noonu di daw noonu 2000 ba 2023 actuellement nii loolu muy daw ba léegi moo waral loolu lan moo tax lu tax inspection travail laalewul ci suñuy contra lan moo tax ñoom ñiy liggéey mënuñoo wan ne lii mooy numéro IPRES si bulletin yi bulletin boo ko xooloon tey amul numéro IPRES te ba léegi gars yi ñoo ngi liggéey te yow yoruñu ay numéro IPRES. waaw du du eh, kii Cheikh xam nga yaa ngi naan bulletin bulletin de salaire. Mhm. man tudduma ko du bulletin de salaire bulletin de paiement yàlla mi ma tiim xam na ko gis nga ñi ñi fa nekk ñëpp mën nañ la ko wax man mii tey jii sama bulletin. bulletin de salaire newu ci bulletin de paiement nañ lay dindal ci kaw. Hmm. maanaam teguwuñ ci yoon. ok ci yoon te yow sañoo wax ni ñoom teguwuñ ci yoon xaw ma ndax xam nga fi may waxee xaw ma. Hmm. parce la ci hmm. yi lay jox baaxul. Euh, yaa ngi wax kii sànq nga ne que lan moo tax dem est-ce que dem ngeen inspection. voilà inspection du travail. mais ñu la signalé bu ñu la signalee contrat. sa sa contrat. demul inspection yow est que yow après yow buñ la arrêté di nga dem inspection loo fay def parce que sa contra sa contra def àggul inspection du travail. mais dem ngeen fa def ngeen jéego yooyu. def nañ jéego yooyu. ok def nañ jéego mais dafa am kenn koo xamante ni moom la sama collègue bi souligné sànq. koo xamante ni moo nekk usine ba. Mhm. di def sale boulot ñu koy wax Souleymane Ndong kooku ancien inspecteur la woon. ok nekkoon inspection du travail. xam li code du travail wax. Mhm. na ñëw Ismaël Sall di def sale boulot liggéey bu bon lay def foofu jàpp nit ñi di leen toroxal mel ni du jullit mel ni du nit parce que man li ma li li li na xari mooy. Mhm. yow nga ni jullit nga fàttali ni suba yow mal xiyaam am na fàttali ni yàlla am na nga jàpp say moroomu jullit di leen toroxal yaakaar ni doo dee bés benn ci am na te loo def fii benn si lu ñaaw bu ëllëgee di nga lay ak sa borom. Mhm. fii nag neex na trop parce que da ngay def ñu làq la état bi làq la garaawul mais fee ne yow man xiyaam bu ñu fa demee kenn du làq kenn amul kenn ku lu pe kuy plaider sa morom. ok yàlla baax na. mais nag du ñu toog di leen seetaan de dañuy xeex ba su jusqu'au bout actuellement nag dañuy wax pour askanu Sénégal dégg xam li xew ciment du Sahel mais étape par étape lañ koy def bu ñu jugee fii dañuy dal ci beneen étape. voilà ñu jugee fii dañuy dal ci beneen étape mais nag dinaa xamal leen. lenn rek ma bëgg lancer benn appel rek. Mhm. pour euh, état bu Sénégal. ñu mhm. ñëw ci loolu. ci lancer appel boobu mhm. mais ñaata employé la ñu daal di licencier ci boobu les société euh, ñun bi ñuy licencier ñun ci six lañ tolloon. six waaw léegi nag xam nga jóge naa fa. mais des fois da ngay jékki-jékki jot yaakaar naa je crois. tey yow ay nombre de neuf xaw ma huit. ok la ñu licencier. inspection travail boobu ngay kii di wax nii léegi. am na suñu benn collègue boo xam ne euh, opératrice la woon. CDI la yoroon CDI. par rapport ak ñun nga xam ne ñun ay CD leen CDI embauché bi ñu ko dàqee ki ñu naan si chef département bi bu ñu ko dàqee. Mhm. pourtant moom def na si ay démarches dem na ba inspection du travail bi ñu xoolee papier lu ñu ko wax. Mhm. yow nekkoo fi sa tur nekku fi. ñoom moom buñ ñoom buñ dégloo émission bi dañ xam ne ne kii ki may wax ne moom xam na xam na kii may wax bu baax. ok bi man femme boobu xam naa bu baax bi mu dañ ne ko yow sa tournée ko fi. kon ñun waxuma laa euh, ku ñu embauché CDI kon waxuma laa kon ab ab benn. CDD oh, la lim la findeel na ko sànq mënoo dem inspection travail parce que yow contrat yi ñu la amul benn loo xam ne inspection travail. laale na ci mm-hmm. amul ci lépp semence de sel fait à Kirène lay doon fait à amul leen du du fait à Thiès du fait à Dakar. aaj kireen lay doon. ci biir usine ba ci biir gox ba. voilà foofu lay nekk benn DSR na moo ko doon def muy Souleymane Ndaw mhm. moom moo tax moom lépp luy xam ci wàllu droit ci wàllu pap këyit moom xam na ko. Mhm. moom lañ ko fa tegee. ok voilà mais lan moo waral euh, ngeen bàyyi ba jamono jii nii ngeen soog a dénoncé la nga xam ne yéen a ngi doon ko dundoo. Mhm. waaw euh, xam nga mooy li ma la rek loo gis étape par étape la. parce que ñoom dañu nekk ñoo xamante ni tey jii. Euh, mën naa ni. yàlla di leen may àdduna. du man yàlla da leen may doole parce que doole moom yàlla kese moo ko am. mais koo wax danaan la ñoo neexuñoo xeexal. muy famille laïs boobu neexuñoo xeexal la wax parce que état bu fi nguur gu fi ñëw ñu ànd ak moom. Mhm. parce que bi ñuy créé usine bi ci régime Ablaye Wade la woon Ablaye Wade moo leen autorité woon loolu moo leen autorisé woon loolu. kon ñu signé convention bi ak Abdoulaye Wade. mais imaginez yow usine boo xam ne depuis vingt trois ans ou vingt quatre ans. Mhm. ci bu fekkee euh, kii vingt trois ans. waaw ngay dem ci convention boo xamante ni BTP nga nekk. ok bâtiment travaux publics sans pour autant nga dugg mine. voilà nga def plus de vingt trois ans loolu amul fenn. Dangote bi nga xam ne moom moom mu tëj ji barki Demba Ndiaye sax kenn ak état bi autorisé wu ko lool actuellement mu ngi mine seen i ñu teg nañ si ay conditions yu baax. tey jii benn travailleur benn benn employé Dangote bu taxawee mën na fay ñaari employé wala ñetti employé CDS ciment du Sahel man maa la wax loolu. nga lancé waale appel bi. waaw appel bi mooy. très rapidement. Euh, mu bëgg état bu Sénégal ñun yaakaar ak euh, yaakaar bi ñu am ci ñoom. Mhm. ba tax ñu jaral ñu lépp. dama bëgg rek ñoom aussi tam ñu gestu askanu Sénégal. ok gestu askanu Sénégal mooy ñu xool li nga xam ni moom la sénégalais di daj di dund ci entreprise yi mais entreprise yi naar yi wala ji fi nekk yëpp ñu tegaat leen parce que dafa ñaaw nga nekk benn étranger jógee fële ñëw si Sénégal jël suufu Sénégal jël doomi Sénégal maanaam li ngay salfaani suuf si ñu ngay salfaani doomi Sénégal doo jox suñu amuñu ax amuñu yelleef. Mhm. Ah, teguñ ci ay conditions yu baax man daal maa ngi ñaan. Mhm. état

am na ñoo xam ne seen loxo yi tey boo gisee nii lañ def ba léegi mënatuñoo tàllilu ko ci lépp ci liggéey bi lañ ko jëlee am na koo xam ne sama xarit la man je le connais très bien ay bëñam fa lañ fa lañ des ñaari bëñam. voilà. Mhm. te première consultation bi rek la semence di yelloo ak yow. Mhm. ok premier jour lay yelloo ak yow à part ça. li ci des yëpp yow yaay débrouiller sa bopp yaay faj sa bopp. merci beaucoup temps bi moo ñu xaw xooj moo tax bu ko defee nag ñiy jaajëfal yëpp di am mbég tamit di kontaante di delluwaat njukkal waa solution TV waaw. incha allah voilà merci beaucoup Cheikh Ndiaye Isma ñu leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Lay Diallo topp ak Modou Diouf ak Sëñ Fallou Gumbala nekkoon ci régie bi di leen di daje ndikki ci kanam ak yeneen i programme